bu len faté abonné ci sen sen YouTube Samsung TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé Samsung sen amadeo. ci sen écran samsul huda amad Samsung Samsung samsul huda amad Samsung TV mooy 3, TV mooy seen télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé. dinañ ko seetaan mooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV la ñuy bégee ba aljana. ay waay di ko bégee waay ba aljana.

وعلى آله وصحابته أجمعين عن إذن مولانا الشريف سيدي محمد كبير آه، أقول لكم حضرة المقدم الجليل وجميع المقدمين والسادة الأفاضل الموجودين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ci euh, sant yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ngi tàmbalee nuyum ci xalifa bu tedd bi toog di Chérif Mahamadul Kabir waaye it tàmbalee nuyum ci xalifa bu tedd bi di Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaayam waaye mu ngi nuyu mbooleem sang yu fi teew mbooleem muqaddam yi fi teew nee na mu ngi tàmbalee ay kàddoom ci nuyu leen yéen ñëpp جئنا آه، هنا بكل فرح وسرور وسعادة لنزوركم في آه، جنبة هنا في هذا آه، المركز اللي هو واحد من مراكز الطريقة التيجانية في التربية والتعليم والإرشاد والتوجيه نانا نيونا nañu في waaye ñëw boo xam ne mbégte ak waaye ñu ñëw ci benn kër ci këru Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi di kër goo xam ne këru xamle la kërub jàngale la waaye kërub ginde la jëme ci yàlla muy canaba gi ñu ñëw tey nga xam ne benn markas la ci marakisu tariqatu tijaan muy benn euh, kër goo xam ne kër gu mag gu yaatu جئنا لصلة الرحيم وتجديد العهود والزيارة مع سيدنا محمد كبير الذي هو شيخ الزاوية بالمملكة المغربية حيث أم الزوايا ومرقد مولانا الشيخ تيجاني رضي الله عنه من نيو نيو في نيو غينينا ليكو سبب موي ياسال كل ري غو خامنا ام نين كا شيخ سيد احمد تيجاني سيري الفاتح نينا نيو نيو في غير نيميكو لين سياره لين واي اند كليفه غو تيد ني ديكو واخ شريف محمد الكبير moom mi nga xam ne tey moo yilif fa Seex Sidi Ahmada Tidiane yi tëdd ak mbooleem zawiya yoo xam ne aju nañ fa Seex a Ahmada Tidiane yi tëdd tey moom mooy kilifa ga mu ne ñëw nañu ànd ak moom ngir nemmeeku leen ngir siyaara leen waaye yeesalaat kóllëre gi jaar seen diggante Seex Ahmada Tidiane yi. Sharif Sidi Mohamed Kabir hada آه الذي جينا في مرافقين له وبصحبته هو سيدي محمد كبير ابن سيدي أحمد ابن سيدي محمد كبير ابن سيدي محمد البشير ابن سيدي محمد الحبيب ابن مولانا الشيخ التيجاني رضي الله عنه ممكن أن تتكلم بالواحد الواحد واحد نانا نانا نيو نيو عندك شريف محمد الكبير شريف محمد الكبير ميغا خامني ابن سيدي سيدي احمد نانا وي جورم بو موي سيدي احمد ابن سيدي محمد الكبير نانا سيدي احمد مومو سيدي محمد الكبير موكو ميني ابن سيدي محمد البشير نانا سيدي محمد البشير مو ميني سيدي محمد الكبير ابن سيدي محمد الحبيب نانا سيدي محمد الحبيب موكو ميني ابن مولانا الشيخ احمد سيجاني رضي الله عنه جميع نانا سيدي محمد البشير مومو سلام تيجاني مكمل هو إذا هو أكبر الشرفاء وأقربهم إلى مولانا الشيخ رضي الله عنه في النسب مني كي نيو غاني سيلين تاي جامونو جي تا ماروك موي كافا ماك دون سين كليفه واي تي ني غنا جيجي شيخ سيد احمد تيجاني ndax silsila bu gatt bi mo jaar diggante mo Sidi Ahmad Tidiane booy xool daanaka ñent nit ño jaar diggante mo Sidi Ahmad Tidiane وهو إلى جانب ذلك آه، شريف عالم عارف بالطريقة وأمورها مأدون من طرف كبار الأشراف وكبار المقدمين من عندك لولو يب كيف نيو بروم خام خام لا كي نيو جانغالي كات kii fi ñëw ku xam tariqa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane la nee kii fi ñëw ku mag ñu baax ñi aju ci tariqa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi jox ay ndigal la ci jàngale ak xamle ak joxe tariqa Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi nee na yemul rek ci doon sëtu Cheikh Ahmad Tidiane yi waaye ñan naa ci Cheikh Ahmad Tidiane yi moom mii ñoo dañ ko nàndal moom wa huwa ma'a zalika بتواضعه وبخدمته للطريقة وأهلها وبتنقله في البلدان يزور أصحاب الشيخ رضي الله عنه حيثما كان من عندك لي يب موم موكاي واخ رك واي دال كو واتي بوكوم دا بي موي بي مو نينا دوما توك سي اوتيل با اوتيل بنكو دالال سي اوتيل يي سير سي داكار لا بوك واي دوما في توك دما بوك جوك dem seeti njabootu Cheikh Ahmad Tidiane yi waxtaan ak ñoom ngir ñu gën a bennoo di yëkkateendoo di tëralandoo mu ne loolu moo waral lenn rek moo ko fi tax a ñëw ñëw siyaara leen nemmeeku leen fasante kóllëre ak yéen moo waral mu ne du toog il faut mu déplacé wu ñi Cheikh Ahmad Tidiane yi am ku mu mën a déplacé wu ñëw ci yow mu déplacé wu ñëw ci yow nuyu la tàllal la loxo ne la kaay ñu àndandoo liggéeyal Cheikh Ahmad Tidiane yi ولذلك هو بمجرد أن تلقى الدعوة من الإخوان أبناء الحضرة لأجل حضور الوظيفة وحضرة الجمعة الأخيرة من شعبان التي تنظم هنا في دكار لما تلقى الدعوة لبه على الفور وجاء ليحضر معهم هنا في وفد كبير في معه آه، بعض الأشراف نانا عندك لولي ابنك yàlla dogal na ab naawu xadaratu tijaaniyet yi ñoo ko euh, ñoo sàkku ci moom ne buñ sañoon xadara bi mujj ajjuma bi mujj avant te sëriñ Abdou ne woon dafay ñaan ku si yi am nga ñëw ñu ci benn bés ajjuma bi mujj avant ñuy koor ñu moomale ko si Amada Tidiane yi ci ni ñuy wasifaa kenn ku nekk ci jàkk ak ci sa jumaa ñu daje defandoo benn wasifa ngir yiw ga nekk ca mbooloo mooma ak tiyaaba ja ñu dabu ko bokkandoo def benn adratul juma nee bu buñ ci jógee koo ku nekk dellu ci sa mbooloo waaye mu ne bi mu jógee loolu te sansa la joxe doom ne dina ñëw teew loolu moo waral mu jógee ko samedi bii passé Maroc ñëw fii waaye du moom rek moo ñëw ñëw na ànd ak Aïssatou Sy Ahmed Tidiane yi waaye am na yeneen délégation yoo xam ne suba ñu ngi war a ñëw am na ñu ñëw tey ñoom ñëpp ay njabootu Cheikh Ahmed Tidiane yi la lenn rek moo leen fi indi muy bis bobu waye mom dal daal ñewé mu ne dal agsi naa waaye may leen ma rek ma dem nuyu taalibi Seydina Ahmad Tidiane yi ولما جاء لهذه القضية وكان هناك هذا هذه الفسحة من الوقت أراد أن يزوركم هنا لأجل أن يجدد معكم العداء ويحيي التواصل بكم ويكون تزاور وتلاقح الذي أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من صلة الرحم ولا شك أن صلة الرحم الدينية والروحية عند العارفين أقوى من الرحم الطينية النسبية ولذلك الذي يجمع المتحابين في الله هي هذه الرابطة الربانية حول هذه الطريقة آه، بسبب مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه الذي هو مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا الإطار جئنا جاء مولانا الشريف للسلام عليكم ولصلة آه، الرحم بكم آه، جزاكم الله خيرا والشريف يشكركم عن عنايتكم واهتمامكم وضيافتكم وحسن استقبالكم وبارك الله تبارك وتعالى فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ànd ak loolu yëpp nee na Chérif ñëw na li waral ak ñëwam fii mooy nemmeekoo nemmeeku leen waaye it yeesalaat kóllëre gi nga xam ne am ngeen ko ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi waaye ñëw fi ngir jokkaloo ak yéen ngir xamante am seen diggante ngeen di jokkalook moom muy jokkaloo ak waaye ñëw na fi ngir diisoo ak yéen ci mbiru tariqa Sidi Ahmad Tidiane yi ci lu ko dundalaat ci lu gën a tax ñi ko jàpp-jàpp ko ñi ko xamul ñu xamal leen ko mu ne ak ñëwum fii loolu moo ko sabab waaye ñëw na fi ngir mu def seen diggante ak ak moom ngeen jàpp ko mu jàpp leen xam ne am na lu leen takke loo xam ne ak mbokk la mbokk googu nag mbokk boole leen mu ne moo gën a dëgër mbokku ci wàllu deret muy mbokkoo ci diine ak mbokkoo ci tariqa mu ne mbokkoo googu ngeen mbokkoo ci diine mbokkoo ko ci tariqa moo gën a dëgër mbokkoo ci wàllu deret ndax nitu yàlla yi dañuy wax ne ña nga xam ne dañoo xamante ci wàllu yàlla di jokkaloo ca wàllu yàlla ñooña ñooy ñooñ yàlla mu ne ànd ak loolu yëpp nag yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ña nga xam ne ñoo bëggante woon ci yàlla di jokkaloo ci wàllu yàlla bu ëllëgee ca ñay toog ca ronkeru yàlla ga di fa kerlu ñooña ca la ñuy bokk kon loolu sabab na mu ñëw ngir xamante googu ci yàlla ak jëflante gi ci yàlla ak jokkaloo bi ci yàlla mu ñëw wax leen ne leen mar ab maa ngi ñëw di leen nuyu di leen siyaara di leen nemmeeku nee na mu ngi ñaan yàlla yàlla sàmm ñu wattu ñu aar ñu ba beneen yoon ni ñu ko bëggee ñu defee ko ni neena assalamu alaykum wa rahmatullahi abonné ci sen sen youtube samsu tv jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé sen ci sen écran samsul huda samsul huda tv Masih tele dereng peserta. Samsung TV nyai penyedak. Samsung TV masih tele dereng. Masih tele dereng. Samsu TV masih tele dereng peserta. Samsung TV nyai penyedak. Samsung Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV lani bege aljana ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay ba aljana waa ba aljana di ko bégee waay aljana